en tant que think ma commencé di nuyu son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di uh, féliciter le premier ministre ak équipe bu mu àndal ci liggéey bi nga xam ne président moo leen ko sant depuis conseil des ministres le avril ñu nekk ci ba indil ñu tey jii lii euh, fi ma bëggoon doore nag mooy ñaari considération jëm ci wàllu forme bi euh, bu njëkk bi mooy ci démarche bi euh, démarche participative mooy li nga xam ne mooy socle gouvernance démocratique yu mel nii boo koy def te muy feeñ ci discours président avant muy nekk président di feeñ ci discours souvent premier ministre ak ñi muy àndal dañ ko war a jëmal ci jëfin wi euh, lu ñu jàpp nag mooy mais lii nii depuis ñu ko door waroon lañ ci boole askanu senegal bi yépp dañu nekk askan boo xam ne ni dañoo bëgg suñu réew askan woo xam ne ni bëri na ay borom xam-xam macha allah askan woo xam ne ni am nañu yéene boo xam ne ni duñ ko jëmale ci réew bi moo tax ku yàlla jox teg la fi nga yore réew mi da ngay ubbeeku ci askan woowu fexe ba li nga fi nga bëgg a askan wi nga ànd ceeg ñoom pour mën faa àgg parce que loolu démarche de mobilisation la en même temps citoyenne parce que loolu dafa am solo. mais gis nañ ne xaw na manqué mais li ma jàpp nag parce que bi ma liiree document bi ma jox démb si guddi xawu teg si li ñu présenté tey ji fii nii gis naa ne tey président moo ñuy woon vision te vision boobu foog lu am lu mu si topp jund ko fi tuuti léegi mooy un master foofu nag la liggéey bi nekk balaa ngay agsi ci plan euh, Sénégal euh, euh, national développement jàpp nañ ne master plan boobu dans sa conception démarche bi dina gën a dellu ci askan wi dina gën a dellu ci force vive yi pour nit ñi contribuer parce que nag dafa loo xam dafa ma xam wax ko si loolu euh, ñi ñuy woowee société civile muy organisation citoyenne yi ak euh, acteurs non étatiques yi ak yeneen xeetu organisation sociale yi fa am yoo xam ne ne conceptualisé wuñ leen dañu jël ay initiative proactive am na si bëri yoo xam ne dama si bokk te tooguñu ruq rek def ko bind nañu ay lettre bind nañ premier ministre bi nañ ñeneen ne leen li président bëgg ngeen nas ko def ñun am nañ ci xalaat te ñun ñu ngi di xalaat chaque jour di produire ay rapport di ko partager te itamit ñu ngi ci askan wi chaque jour di nekk ñoom ci seen i bëbët seen liggéey yooyu yëpp la ñu bëgg a jël tënk ko waxal ko nafar ko tegal leen ko ci taabal bi pour que su ngeen di defar document bu mel nii muy document boo xam ne ni ñu ci ëpp ci Sénégal dañ ci gis seen bopp. kon yaakaar naa ne li ñëw ci conception master plan bi di ngeen ko intégré ci processus bi parce que nit ñaa ngi taxaw pour waxtaan ak yéen jébbal leen ci loolu. beneen bi mooy gis naa ne lu ma constaté aussi mooy euh, on est toujours dans la planification centralisée c'est vrai am nañu ay fonctionnaires yu xarañ yu am xam-xam. yeneen Sénégalais yi si jàpp ku mel ni Victor xam naa ko gis naa lu muy liggéey ci yeneen yeneen dëkk yi. yëpp am na solo mais il faut comme li wax sànq mu gën a ubbeeku beneen euh, préoccupation bi ma am mu ngi jëm ci wàllu li ngeen di woowee parce que président loolu laa gis ci vision bi changement de paradigme nga fas yéene aussi am un nouveau contrat social avec les Sénégalais à partir de cette vision bi nga ñu muy yóbbu deux mille cinquante mais changement de paradigme du wax kese dañ koy jëmal moo tax bëgg naa ngeen wax ñu ci document yi bu ngeen ko tegee ba pare ngeen génne les éléments de rupture yoo xam ne ni mën nañ ko identifier par rapport ak li fi daan def surtout par rapport ak li ñuy wax le business as usual parce que li ma gis fii on est encore dans cette économie mainstream de l'économie libérale qui qui ki guide alors que am na ñu bëri ñu ma xam ci gouvernement bi commencé ko ci premier ministre ak yeneen ministre xam naa nu ñuy xalaatee xam naa gis-gis bu ñu am quand de quand on parle de souveraineté quand on de refondation ah loolu dafa laaj liggéey bu sori bu xóot c'est pas rek ñëw ci benn kër nga ne damay def vernis ci meuble yi non non da ngay changer meuble yi parce que euh, kër gi nga bëgg a taxawal loolu la bëgg tey donc foofu am na benn interpellation bi ma siy def euh, kër yi liggéeyu daal pour man dangeen ngeen koy euh, des na àggagul parce que déjà sax bu ma gisee yenn chiffres yu wute ci présent présentation présentations yi wala différents documents wan na ma ni am na si ba tey si fajar sax xëy na am na ñu kon di liggéey ci document bi donc jàpp naa ni kon des na liggéey bi te loolu moom may jox yaakaar que ni liggéey bi dañ ko continuer waat ak yeneen ñi nga xam ne ni fas nañ yéene tabbal ci seen i xalaat seen i xam-xam pour mu sotti parce que loolu lañu war a jox ci loxo président pour ñu ànd ak moom jëm fu mu bëgg a yóbbu Sénégal. donc loolu mooy ay ay considération préalable yu ma amoon euh, mais sinon euh, diagnostic bi aussi am na si d'accord nañ si yu bëri mais mën na gën a xóot parce que je parle surtout sur l'axe gouvernance parce que ça ma spécialité. Euh, on n'a pas vu dans ce diagnostic aussi toutes les dynamiques citoyennes profondes qui portent ce pays, qui portent la gouvernance de ce pays, qui portent la démocratie de ce pays. foofu nag foofu foofu le président war a teg loxoom parce que foofu nga mën a mobiliser citoyens ñu ànd ak yow cest dire dans les dynamiques transformatrices qui existent dans ce pays il faut pas les ignorer il faut pas les mettre à l'écart c'est-à-dire nga wax ne je fais une mais fekk na tu es encore toujours dans la verticalité dans la centralité après nga teg nit ci à côté pour ñu xool loolu dafay laaj li may wax euh, des mécanismes ak cadres de concertation et de participation qui doivent être institutionnalisés c'est-à-dire gis nga avancé bi ñu am ci démocratie euh, décentralisée avec la participation qui est dans le code boobu la ñu war am au niveau central c'est-à-dire dafa war a nekk les circuits transversaux ñu jugee de la base jusqu'en haut boo xam ne ni peut-être c'est euh, le modèle de de de de de de de de pacte d'intégrité qui doit être le modèle qui conduit toutes les à euh, tous les niveaux processus de consultation et de gouvernance et de prise de décision am na yu bëri yoo xam ne duñ ko mën a développer fii mais li ma bëgg a fàttali rek mooy am na initiative yu am yoo xam ne ni lañ ci liggéey tàmbali ko teg ci ay document te ñaar rek laa ci bëgg a wax benn bi dama ci sawar parce que président de la république bi mu nekkee candidat dafa yónni ndaw mu engagé ko ci ay organisation civile yu bëri yu boole woon seen bopp def lu ñuy wax pacte pour la bonne gouvernance démocratique dañ ci biir pacte boobu ndawam signé daf ci diggaale woon ci six mois dafay ñëwaat xool pacte bi naka lañ koy def pour traduire en plan d' yaakaar naa ne nag liggéey bi ngeen war def dafa war a jël pacte boobu dugal ko ci plan d' action en terme de bonne gouvernance démocratique pour loolu ngeen jàppale président mu respecter un engagement boo xam ne daf ko jëloon en tant que candidat donc loolu maa ngi leen di ci euh, invité li ci invité yi tamit euh, liggéey boo xam ne ni li ñu tuddee diisoo def nañ ko fi on a reçu quand deux ministres maa leen di gërëm muy ministre solidari euh, euh, économie sociale solidaire ak ministre en charge euh, de l'énergie des mines et de des hydrocarbures ñëw nañ seet suñu waxtaan ñu jébbal lu ñu def bëgg nañu benn ministère yëpp ñu def ak yooyu. man nag su may analyser gouvernance dafay mel ni benn tamit boo xam ne ni maay yi li si nekk mooy ñeent pook benn bi mooy le cadre légal. mooy ça nous amène aux réformes yoo xam ne ni président am nañ constitution de mais constitution bi comme ni nga ko waxee dans ton programme que ni dans votre programme excusez-moi monsieur le président de la république dans votre programme nga ne di nga def ay réformes bu pare di nga di nga aussi euh, consolider constitution bi ñu am te loolu yaa ngi koy jëlee inspiration bi ci assises nationales yi ak ci CNR yi loolu ñu ngi lay ñaan président ñu àggale ko beneen bi mooy le cadre institutionnel yaakaar naa ni si on veut véritablement des transformations structurelles il nous faut prendre des mesures fortes et audacieuses sur le plan institutionnel gis nga problème yi ñu am fii yëpp man dama koy wax Sénégal suñu problème c'est pas un problème économique c'est un problème de gouvernance que nous avons ça commence depuis la citoyenneté jusqu'à l'exemplarité que doit avoir l'étude l'élite surtout l'élite aux affaires loolu bu ñu dans des réformes institutionnelles qui sont vraiment euh, incisives euh, dëkk bi dina avancer jëm kanam euh, beneen bi mooy les processus de prise de décision de contrôle et d'évaluation wax naa ci sànq tuuti foofu la ñu war a gën a góorgóorlu dugal ci citoyen yi fépp fu ñu jël décision dañu am des parties prenantes indépendantes ñu toog du xool liñ fay def ci conseil d'administration yi ba ci suuf loolu bu ñu ko adopté comme mode de gouvernance transparence dina nekk loo xam ne ni dina law ci réew mi te ñëpp duñ ci gis seen bopp enfin bi ci gën solo nag dans ce tawi ce sont les pratiques pratiques yi nag daf ñuy interpeller individuellement la responsabilité individuelle du citoyen mais surtout et avant tout la responsabilité individuelle du citoyen à qui on a donné des charges de gouvernance dans ce pays de gestion des affaires publiques foofu il faut être intransigeant C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier discours du président qui rappelait cela euh, dernièrement. Et deux aspects importants, la gouvernance décentralisée, foofu aussi dafa mu lu muy laaj dafa sori parce que déconcentration yéen a ko wax ak décentralisation mais pour man déconcentration boobu moom la ñu war a wàññi bu ñu bëggee vraiment gouvernance démocratique directe la ñu jox force la décentralisation jox force jël pouvoir bi yóbbu ko lu mu gën a jege citoyen bi jox ko ko quartier yi village yi na nekk les premières instances de prise de décision muy yéeg par euh, de façon spirale ba àgg ci kaw sur la représentation yeneen institutions yi tamit dañ ko soxla de parce que démocratie mooy espace de de de d'échange de partage yu mu gën a bëri démocratie boobu gën a dëgër loolu euh, damay pare euh, xam naa ne professeur dama commencé yàgg maa gi jéggalu si loolu mais finir rek un sur des éléments concernant la gouvernance euh, sociale vraiment machallah merci et je crois que ça ça doit être le premier pilier à la base la protection sociale am na sax lu ngeen tuddul les femmes ménagères dañu fa war a àgg am na lu ngeen tuddul les filles mères célibataires seuls dans leur maison dañ leen jur dugal ci protection sociale bi de façon euh, directe enfin gouvernance économique ma développer yëpp ndax xam nañu ñu ngi liggéey ci ressources naturelles fii Abdourahmane mu ngi mu ngi sourire parce que liggéey nañu lu bari bari bari mais pourquoi kenn personne ne parle ici du levier monétaire ça ça m'étonne pourquoi on ne parle pas du levier monétaire dans le financement de notre développement Je pense qu'il faut s'ouvrir aux économistes hétérodoxes qui osent sortir des cadres pour chercher des solutions ailleurs. Aduna nu mu demee tey xam nañ ne ce modèle qu'on voit a échoué globalement. Il faut qu'on ose. faut qu'on ose. Il faut qu'on ose encore des réformes et ça, ça ne peut pas exclure le levier monétaire. Et pourquoi, euh, à nos chers économistes, peut-être que vous allez y répondre, mais la théorie monétaire moderne, il faut pas avoir peur de ça. Ça nous permet de régler peut-être nos problèmes d'endettement, etc., et sortir de ces critères de conversaires qui nous tenaillent. Il faut qu'on ose bousculer tout ceci. Einstein le disait, si vous voulez trouver une solution à un problème, il faut que vous sortez du cadre. C'est ailleurs que vous pouvez trouver cette solution pour devenir. Je vous remercie de votre attention. Merci pour euh, toutes ces Donc nous sommes au terme de ce panel. Nous allons maintenant euh, laisser la parole à